الحمد لله الذي أغناني وأعزني ngir jotaayu lekk bu nekk doon waxtu bànneex lobb Maam bu Buso ngi leen di gunge lu ëpp ñaar fukki at ci seeni biir kër féete ak kilomètre ci yoonu Tëngéej fii ci Ndakaaru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 te it ngeen yelloo li gën lobbu maam jaaru du jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori. alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani. أغناني وأعزني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

بني عدنان المصطفى خير البرايا من بني عدنان بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ali Imran TV ci seen jataay bii muy tudde siira te siira mooy dunduk yonent ba sallallahu alayhi wa jaar yi mu fi jaar ak yu mu fi def loolu mooy siira bu dee yeneen ni mooy tudd taarix mu bokk ak ñun taarix ba noppi nag daal di beroo siira siira tabarakallahu ñu door koog yéen ba tolloon ci bi mu gënee àdduna ba niñ ko yónni diggante boobu xew-xew yi tey mu war nekk sunu juróom wala ñeent fukkeel ak juróom-ñaar muy darsu 47 46 bi ci lañ taxawoon ci ba mu jógee ca tukki ba delsi ca dëkk ba fas yéene eh, taxawee ni war a taxawee ma ci bind boobu dafa yëg ne góor du xëy toog al ambiyaa kenn mësu ko cee def al mursaloona kenn mësu ko cee def al awliyaa wal aqtaab al ulama amu ci kenn koo xam ne kii da ngay xëy tëdd déedéet def rek ma tollan ci misaal ne nooxun xëy na rek nekk menuisier nooxun ndax gaalam ngam duggoon moo ko defar waaw sunu borom moo ko dicté nu ñu defere gaal wax ko élément ya cay dem ba mu defar gaal gu mën a jël lam jël mbokk yi loolu lu am solo la noohun moo defar gaal gaal ga moo mën a jël ña gëmoon ñépp gaal ga yóbbaale na ay fas ay xaraki naga ki bay gaal ga lu ne yóbbaale na ko te noohun moo ko defar ci loxoom te nag ab sëriñ la woon ndax minal anbiya yi moom la yàlla njëkk a yónni ci xeet yi yónnent bi aleyhi salaatu salaam kon moroomi yónnentam ya fan jaaroon rek lay mën a jaar boo jëlee Moussa ibn Imran Moussa politique na doonte politique du métier nag politique moom kenn du ko métier woo waaw waaye daal maa bëgg a xam ne def na ko waaye politik ba nag yàqalu ko liggéey ba ndax liggéey ak politik politique kenn du ko liggéey Serigne Cheikh nee na ku ko bëgg def liggéey doo góor politique mu ne ku ko bëgg a def liggéey Serigne Cheikh nee na doo góor waaw kon Moussa politique bi yàqaloo koon métier mi ndax moom métier sàmm la amoon waaw éleveur kon fii ñu toll tey ci wàllu élevage ñoom Ismaïla Sow ak ñoom Samba Dadal ak ñi jiite loolu xam nañ méccam sàmm xam nañ méccam sàmm waaw sàmm jur ndax réew mi su fekkoon sécuriser nañ sunu jur yi kenn dàq noo yar jur kon tabaski du jot ñuy xaar Mauritanie ñëw du yokkamtaloo est-ce que Mali ngi ñëw ñoom ak ñun ay xar lañ am ñu am i xar ñoom nag dañoo sécuriser seen xar ba kenn du ñëw ci kër gi yewi seen xar yi wala ñu faat leen mbaa ñu rendi xar yi fees ko wacca la fa saam yóbbu xar yi loolu kenn du ko def Mauritanie kenn du ko def ma Mali ñun nag malheureusement moo tax mbirum sàmm Moussa def na ko Moussa bi mu jógee Égypte bi mu jógee Égypte dafa émigré xaw ma nag émigration ba clandestin clandistin la wala déet yéenay seet lu mu doon waaye daal Moussa jóge na Égypte émigré dem Madiana waaw ba muy demit xaaifan yataraqab dafa làqutu dafa làqutu de waaw xaaifan yataraqab dafa làqutu ne coow dem ba Madiyana ba mu demee Madiyana menn mag ca dëkk ba am na ñu ne sax mooy yonent yàlla Shuayb dalal ko ndax yàlla mi ko bëgg orienté pour giddi ko moo def mu fekk doom yu jigéen ñi njaati géem li ki nar a nekk njaati géem ay doomam yu jigéen ne ci teen bay root mu tax sunu boroom li woon a ngi fi ñu ko def na woon fi nekkut yàlla na yéen di nun xoolal rek orientation boobu bu ñëwoon fekk gone yow wëgg ba dem kañ lay gis Shuaybu bu ñëwoon fekk gone yi ñëwaguñ kañ lay gis Shuaybu mu ñëw fekk fa gone yu jigéen ya ña nga taxaw di bëgg di bëgg a root mënuñoo jot ca teen ba ndax sàmm su góor si waaw mënuñoo jot ca teen ba mënuñoo jot ca baag ya ndax sàmm su góor si moo wëggal leen loola jural ko mu am ñu man koo wammat ba yóbbu ko ca seen bàyyi seen bàyyi jàpp ko surga am lum ko defloo nag daf ne ko man de yaa gis sama jànq ji toll nañ ci am jëkkër te amuñu jëkkër waaw léegi nag boo ma sàmmalee fukki at ma may la ci kenn allahu akbar boo sàmmalee juróom-ñetti at ma may la ci kenn boo ko defee fukk moo ma gënal Moussa ne ko kon fukk laay def kon Moussa li muy tekki mooy def na méccam sàmm métier am élevage sàmm na ay xar di tawte ci àll bi waaw ndeysaan moo bukk yeeg tild yi di fanaan ci néeg buy senn ba muy fukki at waaye léeg-léeg li la ci mooy fukki at yëpp may gu njëkk la <laughs> soldu fukki at nga dajale ko def ko may gu njëkk xoolal tey ku doon liggéey ñu lay fay weer trois cent mille nga def ko ba muy fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñaar nga def ko ba muy fukki at ñaata nga dajale loolu lépp mooy may gu njëkk gi allahu akbar waaw la am solo la kon damaa bëgg xam ne Moussa sàmm na alayhi salaatu salaam kon nawleem saxa al ambiyaayu wal mursaloon jaar nañu fa ku mel ni Yuusuf économiste la woon allahu akbar ku mel ni Youssouf nga xam ne lam doon jàngale ci économie ba léegi ñoom Moubarak loo waaw ñoom no gaa yu nga xam ni ci loolu lañ màcc ci lañ jàng saa bu ñu yoree surtout Youssouf rek mu joxewaat njàng mu bees ci économie joxewaat orientation mu bees ci économie kon Youssouf sàmm na waaw nu nu ko toppee nag daawuda alayhi salaam la woon wuude la woon waaw ëw na ëw na seen cheikh mi ngi ñu nekk tax mu ne yowmal xiyaam bu nu duggee aljanna yan lañ fa dugg ngeen dugg fa bokk na ci li ñuy neexale ñu dugg aljanna benn exposé boo xam ne dañ koy def ci la la daaw la daawuda doon ëw la la la daawuda doon ëw wala bokk la yónente ba doon ëw waaw budul Idris peut Idris la daawuda Euh, tëgg la woon daawuda tëgg la woon et cetera yonent boo dem rek am na loo xam ne moom doon def aadama baykat la woon aadama baykat la woon waaw ak yu nu demee Idris lii tey ñuy tuddee tey euh, mbirum abita wàllu defar kër ak defar terrain ak samp ay néeg loolu la Idris doon liggéeyee kon yonent mën a liggéey na alayhi salaam kon dafa génnoon ngir liggéey liggéey booba naax saa mu del si waaye nag du toog ndax benn yonent musta toog mu daal ni day wut beneen liggéey ñu ne ko loo ban liggéey ngay wut mu ne day sàmm xar saabu yëpp nag waaw ba mu leen nettilee mas naa nekk ku doon sàmm xar saaba yi day sànni daal koy xoolaat yow daa nga sàmm xar mu ne mooy yéen mbeddi màkk yi da roq yëpp laa xam <laughs> waaw mu ne mbeddi màkk yi montagne yi mu ne mu yëpp laa xam ba tax keroog ba muy rañaan ginnaaw xam ne mbeddi màkk yi xam na montagne yi jóge këram dugg ci montagne du jafe ndax lu yàlla def rek am na lu tax ndax mooy al azizu mooy al hakim mu ne sahaaba ba ma jógee ba ma jógee eh, ca tukki ba Sham ba ma ñëwee teguma sama gopp rek toog mu ne ñu ne ko noo def mu ne damaa ñëw ci Makka tàmbalee sàmm xar mbokk yi nan xool dunduk yonent bi te jéem ko dëppaleeg sunu dund ak sunu dundi doom ku ne jéem a def dara mooy doxalum réew mooy doxalum réew de yonent bi ne dafay sàmm nuy sàmm luy sàmm mooy boo ñëwoon fi mel ni cël ma mbaakool ku am juróomi xar daf lay jox ku am fukki xar jox la ku am ñaari xar jox la ku am menn jox la nga bind nombre yi xar yi mu am ak nombre yi xar yi kii am plus seen nombre yëpp bu la joxo bu la na koy joxee ñetti xar wujj wa jox la ñaari xar muy juróom ñu boole xar yëpp léegi nag weer wu dee xar mu ne daa am lu muy fay ci sàmm gi am lu muy fay ci wëgg gi waaw ba ñëw ci forage bi bu xar mi naanee ba màndi daa war a fay ñaari dërëm bu dee bët bu set mu naan danañ mën a ne weer bi kon nangami ñaari dërëm la bi ko sàmmee ba ñibbi si dañaa war a fay fanweeri dërëm kon bés bi da ngay am fanweeri dërëm ak ñaari dërëm damay misaal rek nag ndax ki nga xam ne mooy seetaan peut-être te toll ci niveau bi may misaale mën maa dégg waaw moom dina moom soo dina mën dégg ñoom astu di ñu mel ni ñoom day ndeysaan yàlla yàlla sàmm leen <laughs> waaw léegi loolu lay boole bu weer wi deexee moom yonent bi alayhi salaam dem ca kër ga participer ci dépense bi waaw dem ca kër ga participer ci dépense bi waaye nag mbokk yi ku nara ku nara jëflanteeg nit ñi boo sàmmee xar mu am lu la jàngal ndax juróom fukki xar ak ñaar wenn yet moo leen di sàmm juróom fukki nit ak ñaar juróom fukki yet ak ñaar moo di sàmm waaw cinquante trois xar cinquante trois mouton je pense que la waxee xar cinquante trois mouton juróom fukki yat ak ñaar ni muy sàmmi nit bu dee xar wenn yat nga yor wa ma tilka bi yaminika ya Musa qaala hiya asaaya atawakkau alayha wa awshu biha ala ganami waaw kon yonent bi alayhi salaam bi muy sàmm xar yor wenn yet bu jógee bay sàmm nit dana xam ne nit ñoom nu nombre bi toll nun la yet yi ndax nit ñu nun la ñu fi ne bu nit ne ci ci ci ci ci YouTube bi euh, dakaar dafa am quartier bu tudd nangam commentaire yi day am ku ne ko waxoo dëgg kenn ko waxoo fi dara kenn ko da ngay léeb kenn ko da ngay sóob léegi te li wax dëgg waaye même su dee dëgg nu leen lay def loolu tax sàmm amoon solo alayhi salaam kon daal di jóge ci daal di dugg ci ak càmm saa bi da yow sàmm nga <laughs> mu ne ah, montagne màkk yi laaj leen waaw sàmm laaj leen laajal montagne yi màkk yi moo tax ndeysaan yàlla na ma yàlla yërëm benn waay daf maa may ab oto bu ñuy wax Mercedes ba mu amagul oto ndax daf ma doon laaju ab laaj laajub diine mu dégg bruit bi bari mu ne ma waaw waaye lu xew ma ne ko ci lan mu ne ma bruit bi dafa bari ma ne ko waaw damaa nekk ci benn kaar Dakar dem dikk jóge géejawaay jëm Dakar immeuble fad mu ne mag nga ne lan ma ne ko waaw di san mu ne ma naa la wooxaat ndekk boobu dafa may wutal ab Mercedes <laughs> euh, maanaam bi Mercedes moo ko amee nag jóge fii nag doon dem am njaal Kawlax bi ñu ñibbisi ñu jaar Gosaas jaar Mbar jëm si kolobaan ti diggante mbar ak kolobaan boo rombee buntu mbar ci sa góos ñaari kilomètre fa la kub-kub nekk muy dëkk ba ma doon jànge alxuraan booba Lamine Thiam moo doon dawal ma nga fële ca ndar yàlla na ko yàlla yokku wér bi ñu agsee ba ci alt bi ma gis ñu bind ci tabal bi kub-kub mu ne ko Lamine mu ne am mu ko droiteel mu droite mu ko lalal ma sa jaada gi <laughs> mu ma def ñaari rakk mu ne ma lii nag mu ne ko Lamine gis nga montagne yii ak garab yii ak guy yële ngay séen ak sidéem ji mu ne ah mu ne ko ak nangam nangam mu ne ah mu ne ma ko daanaka mën naa laa wax garab gu ci nekk euh, nu mu tudd ak nu ñu ko doon defee. ma ne ko Lamine roq sii laa doon jàngal xuraan rek mu xëm waaw mu xëm ndeysaan di jooy ba kolabaan ma ne ko roq sii daal fi laa nekkoon ndeysaan ma ne ko bu màggal masaana jot wala gàmmu bu ñu jeexaatee gerte ba am liñ ñu sas fii la ñuy ñëw ci tëli bi di compter oto yi fi jaar di oto bi fi jaar ñu ne benn beneen ñu ne ñaar beneen ñu ne ñett wala ñu ne kee yaay compté taxi mbaar yi booba taxi mbaar moo gën a bari ci oto yi kee yaay compté 46 yi waaw ala kulli xaal yonent bi mu ne saaba yi sàmm naa ñu ne ko sàmm nga mu ne leen mbeddi màkk yii montagne yii xur yii mu ne mu ne ko fu ne laa dugg waaye ma waxaat ko moo tax kere ba muy gàddaay jóg guddi jóge këram dugg ci mu xunti du ko jafe mu jóge ci kër ga rek dugg ci xunti ma waaw lisaan sallallahu alayhi eh, xar nag day jàngal nit nan la ñuy jëfante ak al aqwiya nan la ñuy jëfante ak ad duafa al aqwiya mooy xar yi nga xam ne ñi ngi ci biir xar yi am seen doole tey mbëkk seen moroomi xar yi loolu mooy al aqwiya mbokk yi sàmm sàmm li may wax nii Ismaïla soow xam na ci dara bi nga bi nga yoree xar yi di sàmm mbaa nag yi am na ci xar moo xam ne ponkal la am na doole mën na mbëkkee léeg-léeg sax boo demee ci sàmm yi léeg-léeg ñu ñu ñu sempi xar yooyu yeew leen ca kër gi fi ne soo dox sooy dox ci àll bi di tukki doo seen façon góor wuñ mbërgal waaye da nga seen fas wu jigéen wuñ mbërgël luy mbërgël mooy fas wuñ bàyyi ci àll bi muy far ci ñax mi duñ ko def fas wu góor fas wu jigéen lañ koy def lu tax fas jigéen parce que fas wu jigéen ndeysaan les femmes <laughs> fas wu jigéen bu doxee ba ba ba ngoon jot day ñibbisi bu doon fas wu góor fa lay jaare mbaa far ñu sàcc ko fas wu jigéen day ñibbisi ndeysaan fas jigéen amul problème yooyu moo tax kii kii sàmm bàyyi ma yooyu ñoo ko doon jàngal yu mel noonu gis nga abraham bu yeewu woon ba ñaay wane nañ dëpp lay dëpp abraham bu fekkoon nite na ba muy mabbi kaaba ga mi ngi ci mi ci bindi ci kanam bu nite woon kera ba keroog lay dëpp waaw ma nitewut naka noonu kii sàmm ci lay xamee xar yi nga xam ne ay doafa la mooy xar moo xam ne dafa néew doole boo daqee xar yi ñu dem nañ ko fay fàtte nga topp ci moo tax léeg-léeg nga seen Ibrahima Ismaïla Sow am xar wusin ca ba muy sàmmi mu jël mbote ma gàddul ko boppam yaayu mbote mi topp ci kawam allahu akbar alayhi salaam kon càmmam gi du sàmm gu ordinaire déedéet sàmm gi ndekete yaa quelque chose waaw bu moyee am ci xaalis am ci xam-xam am ci expérience digganteem ak doomu aadama yi waaw mbokk yi politique gu sàmm sàmm am na solo lool loolu nag yonent bi jàngi ko ci xar yi muy sàmm aqwiyaa yi duafaa yi ak almarda ak nu ñuy dimbalee xar yi soo soo noppee bu ñu société bi rek mu daal lay jox li nekk société bi al ak yow ñoo fi nekk ak du afa mbokk yi yàlla jaam yàlla ni kiin ak seen njaboot suñu bind 47 foofu la yem ngi jox daje incha allah ci bind yi di ñëw di jaajëfal leen ci ni ngeen di toppee jataay bi am nañ ci mbégte lool abonné leen yéen ñëpp ku ci nekk na fexe ba it bu abonné abonné juróom ngeen di partagé di aimé tey contribuer ci liggéey bi weefa nga ne orange moo nga ne DG Fat Diallo ma nga ne moo ko yore yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaha matata wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi